de courant électrique et donc de débit Internet, euh, ce qui serait de nature à entraver le déroulement optimal de la science de ce mardi pour cause de connexion. Euh, alors, donc, euh, avocat Smansung, avocat état bi ñoo daal di c'est si CEDEAO pour mu daal euh, rencontre bi nga xamni tam naka dem bëgg nañ ko daal amal ak Ousmane Sonko ñu daal taxaw ci kawam exactement lan xamle mooy euh, fa nga xamni tam itam fa le bureau CDAO nekk des fois des am problème coupure courant ou des fois connexion bi du bax mo waral ñom ñu bu ko li que Modi euh, novembre euh, mu nek lo xamni en tout cas euh, en fait lu toll ni nous ñu né problème connexion ak problème courant ba waral ñu daal di ni faaw ñu daal reporter euh ñu daal alors dëkk bi daal xawna doy en fait xam nga <coughs> man man man je suis un peu quoi. Hmm. parce que tey jii ne xam nga euh, peut-être que dañuy fàtte ni borom xel la ñuy waxal quoi euh, est-ce que yow personnellement yow mën nga mën nga comprendre loolu que ñoom problème connexion moo leen tere <laughs> pour que procès bi. ñee ah. ñoom ñoom ñi mën a nekk. ak ak problème courant. ah sa waay man ñaata waaye buñ duggoon ci ay kër sax ñu branché leen ci wifi je pense. donc je pense que nous non, c'est des prétextes un prétexte là, parce que là ils sont pas prêts ils n'ont pas de dossier solide ci table ils se sentent prêts pour affronter les avocats euh, de Ousmane Sonko Le règle là. donc ay repousser ak yooyu bon boo de sax date bu ñu dinañ parce que pourquoi À un moment donné, dama mon di il faut constater qu'il y a deux Sénégal. Hmm. le Sénégal euh, de la justice et le Sénégal de la politique. Malheureusement, le Sénégal de la justice a ployé le, genou, en tout cas une bonne partie a ployé le genou euh, face au Sénégal de la politique. Ok. Tay politique mooy doral, telle politique hmm. mooy décider. Hmm. dossier bini, nii ñëpp xam nañ ne dossier politique la. Hmm. ñoom buñ naree focaliser ci bataille judiciaire dañ koy ñàkk dañ koy perte. moo tax nag euh, date bi bu demee ba taxaw mënuñ def dara lu repousser mënuñ def dara lu il euh, euh, rendez-vous bi parce que en termes de justice les avocats peuvent se sentir euh, dans dans la possibilité de batailler donc du coup je pense que ak l'Union sous

Euh, borom xel yi waxal donc <coughs> je pense que la lii c'est des prétextes rek c'est des prétextes parce qu'ils n'ont rien sur la table le dossier euh, vide alors ñu ko ne ba tey li nga xamné que modi communiqué bi euh, AGE li nga xamné que modi les agents judiciaires de l'État ñoom ñu ngi proposé li nga xamné que modi di euh, pour ñu dadi reporter li nga xamné que modi di euh, ba le 8 novembre jëm CEDEAO bi nga xamni tan fo dadi wëru mëna taxaw ci kaaw ki nga xamné que modi Ousmane Sonko nak ëlëk mu nekkon lo xamni tam ñëpp ñu ngi koy dadi xaar exactement alors cette fois ci à Abuja fa nga xamni tam fofu le avocat wala dadi débarquer en tout cas li plus mëna doon rek ñom itam ñi ngi daldi japp ni nak li nga xam nek eh, modi eh, pour le moment hmm, eh, yefi nak wërugul wëru mëna am parce que dañu daldi japp ni fu mu toll ni li nga xam nek modi Euh, Ziguinchor wala comme sax centre ville bi japp li nga xam nekk di ouest euh, bu Dakar euh, Les dafa daal am ay problème des fois délestage ñoom Nous bëgg nak ñu daal koy yóbbu fa nga xamni te moy Zanouk Abuja pour ñu daal ko fay li nga xam que di au delà Sénégal alors donc alors que le pauvre agent judiciaire de l'État niché dans le système nerveux des institutions logé au corps du paramètre des sites les plus stratégiques du pays à quelques euh, par Assange donc lolou ki nga xamné que moo maître euh, Cheikh Khoureyssi Ba daal li nga xamné que moo di bind mu daal japp ni tam fum toll nii amatuñu idée bi nga xam ne ko textile bi boral ñu bëgg euh, pousser ni lu nu mel japp ni tam très touché mais décidé en tout cas en tout état de cause de marquer sa solidarité pour frétir comme il se doit l'incompétence de la Sénélec et consorts waaye ki nga xam que moo maître Khoureyssi mu exactement dans le japonais ni amis. Euh, Sénélec moo daal incompétent en tout cas le plus si mën a am rek jàpp na ni itam euh, loolu koy tenir nak ëllëg inshallah allah euh, jëm si li nga xam ne alors tout à l'heure il ngi a ni li nga xam ne que moo les agents de l'État du Sénégal prégnent guñu pour daal di song li nga xam ne que moo di mbir yi booral ñoom ñu bëgg ñu koy reporter génnee ko Dakar yóbbu ko fa nga xam ni Abuja en novembre inshallah le 8 novembre bi ñu daal di jëm alors concrètement non euh, euh, lan ngay xaar si nga que moo si de justice bu e euh, parce que ñoom décidé ni dañuy daal di àddu daal di jëmale si kaw ki nga que moo di Ousmane Sonko parce que le début kenn xalaatul woon que ni peut-être sax yéen que réponse alors réponse am du côté li nga que de la CEDEAO lan nga si xaar concrètement franchement euh, il est attendu un peu partout à travers le monde euh, comme bu avez euh, li nga que juste à la réaction et à la dissolution du parti. voilà donc je pense que ces dernières années CDAO est devenu très contesté. Hmm. presque dans tous les pays membres. l'autre parce que c'est une démarche d'un japonais c'est une démarche qui ne favorise que Ben cercle bu ndaw ay njiit yoo xamante ne ñi naan la CDAO est devenu le club des présidents. ok on pense que tey CDAO, qui CEDEAO ci li nga xamante ne na ko ci ay limites ou bien moom ci ay échec hmm. ci dossier malien bi. Hmm. ci euh, le problème euh, guinéen bi. Hmm. ci euh, le problème de notre mu Burkina Faso. ainsi de suite. donc mu doon ay problème yu bëri yi nga xamante ne tey jii nii ay défi yu tegu ci kanamu CEDEAO et jàpp nañ ne à chaque fois démarche am euh, day day day day nu mu tudd sax day décevoir hmm. population yi alors c'est des décisions yi nga xamante ne euh, le plus souvent njiit président yi fa nekkal c'est paradoxal parce que yow ngay nekkal ay nit te nit ñooñu noonu mënoo mënoo nekk ci seen bëgg-bëgg hmm. donc ñu jàpp ne euh, malgré tous ces nu mu tudd sax tous ces tous ces tous ces hmm, hmm. problèmes yi nga xamante ne euh, CEDEAO dund na ces derniers moments et que affaiblir ko je pense que dans ce cas précis sur ce dossier là CEDEAO dafa am benn occasion d'or bi nga xamante ne mën na ci pour réparer ko pour euh, defaraat image am parce que dit jii nii yaa ngi gis brandiron nañ fi l'argument d'une euh, d'une possibilité d'intervention militaire okay. Burkina Faso. Okay. Nous savons qu'une telle intervention fera beaucoup, beaucoup de victimes. Bon, Alhamdulillah, la raison les a frappés. Les gens ont été dara. Hmm. Euh, le problème d'insécurité qui régné dans l'Afrique occidentale, hmm. nous pensons qu'au lieu que la CDAO soit muy prôné di nan dañuy def lii ni dañuy ñëw dañuy limoger dañuy mobiliser armée que ñu mëna taxawal ben armée bo xamantene day combattre le terrorisme une bonne fois dans toute l'Afrique mais ñom puisque ils ne sont pas dans toute euh, dans dans tous ces dans toutes ces démarches japp nañ né dans ce cas précis saisie bi nga xamantene Sénégal précisément les avocats de Ousmane Sonko def nañ ko. Hmm. kon ñu ñu ngi xaar ci ñom ñu doxal li nga xamantene moy yoon. Hmm. voilà donc je pense que euh, dina don lo xamantene ce sera très très très décisif sur même le devenir de la considération de la CEDEAO ci biir euh, ci biir Afrique euh, ci biir Afrique de l'Ouest bo len di fàttali ko même le cadre du parrainage CEDEAO waxoon na ci CEDEAO ne nee dafa ne won sax c'est anti antidémocrate di somme woon na état Sénégal pour que mu dindi parrainage parce que élection ça doit être inclusive mais Macky Sall moy don ko xamantene dang koy wax si ce n'est pas le cas bon ne mu pas. donc CDAO, Macky Sall rejeté hmm. demande de CEDEAO parce qu'il dit qu'au delà de mu CEDEAO organisation nous nous sommes membres mais il ne faut pas oublier que le Sénégal est un pays souverain. C'était l'argument qu'il avait brandi pour ne pas faire ce que la CDAO dit donc jàpp na ni Macky pare woon pour euh, pare woon pour bañ a def li CDA CEDEAO sant. moom laa la bëgg wax ni. maanaam ci ginnaaw amoon na fi. CDA wax ko mbir. arrangé wu comme mu bañ koo def. Hmm. même bu CDA CEDEAO dem na sax ba par exemple mu aurez une euh, verdict boo xamante ne c'est favorable à la partie de Ousmane Sonko est-ce que ce gouvernement de Macky Sall sera euh, se sentira obligé de suivre cette décision appliquer exactement alors donc dans le Japon, c'est CEDEAO où, tey euh, nous ko un peu partout euh, à travers les nga qui nekk moo qui dérive yi nga xam mettre devant ses responsabilités peut-être pour mu daal di koy war Effectivement, c'est ça. La CDAO est, mis, alors, est, mise devant sa responsabilité. Alors, euh, euh suite aussi euh, à, cette demande, il y a un avocat de l'État demande de reporter l'affaire. On a aussi bien un report bon tout est possible hein. tout est possible xam nga tey jii dafa am element yo xamante euh ñom buñ ko brandiré bon si cdao gis ni euh, argument c'est des arguments non tout tudd sax. Euh, factuel. voilà ñom ils peuvent se sentir euh, dans dans dans dans l'obligation ñu may leen dérogation bi nga xamante mom lañ laaj. je pense que peut-être que ñom euh cdao mu nako joxé mais peut-être qu'aussi derrière l'État du Sénégal est en train de s'organiser parce que aussi dañoo nek ci dëkk yo ne dañoo dëkk bu doy hmm. si tu n'as pas la maîtrise de qui sera le juge qu'est-ce qu'on connaît de lui <laughs> quels sont ses antécédents. quels sont les moyens de pression pour mëna tecc ah mais si tu n'as pas tous ces tous ces éléments là mën nga laaj ben ben repousse repousser même les avocats des des conflits. entre parties mais si tu yi fi wara nek lu wara euh, à quoi faisait le juge moom mu la dama ne même des fois ci yenn euh, ci yenn conflit euh, civil ay parti avocat yenn say mën nañ jël élément yi ni diko mettre en œuvre hmm. buñ xamé né procès bi c'est pas favorable mën nañ andi euh, voilà ben ben ben élément irréfutable bi nga xamante le juge peut se sentir dans l'obligation de repousser loolu day am. mun hmm. ngeen dem sax ba ci salle d'audience bi juge bi le report bi. Hmm. donc loolu c'est des possibilités et puis je pense que ça va permettre à la partie présidentielle euh, gouvernement bi ñom préparer wu xool nan lañu gëna nan traiter dossier alors euh, ñu daal di euh, euh, si li nga xam que moo DGE le fait que ba léegi exécuté wu li nga xam que moo cette décision de la justice tey juste ba si fay Isaac